léewoon benn pël la ak ak benn ak ab paa bu ñu dem ñu dem ba di julli ci dem ñu daal di sim seen sa sa biir ñu dem daal di daal toog sa sa biir nag daal gis gaynde gay ñëw après ñu jug gis seen gaynde gi rek daal di daal di wax allahu akbar rek daal di allahu minal préparé foog daan ni ko rabbana mi kal départ ñu ñaal <laughs>